bi maa lay nuyu. ñu eh, lay ziar. mbaa yaa ci jàmm. sant ya, caméra bi. alors gis nga dialogue bi li nga xam ne moom am barki démb amu ci lenn loo xamante ne rek na sénégalais yi tey loolu loo wax. bon dialogue bi suivre nañ ko. vraiment suivre nañ ko ñi mu intéressé dem nañ seetaan déglu ko am wax leen mais ñi nga xam ne intéressé wu leen demuñ fa. parce que dialogue bi moom ku intéressé moo fay dem ku intéressé doo fa dem bon ñun ñi nga xam on attend les élections on ay date précis avant le deux suñu sañoon def ko. comme ça elle va quitter le pouvoir. waaw parce que parce qu'il est temps qu'il parte. heure am dafa jot quoi. si reste la SCO 2 ça ne nous arrête pas son mandat est fini. il n'a qu'à faire des élections comme ses prédécesseurs c'est tout. Voilà, le 2 avril. waaw moi, juin juin mandat date juin moom d'accord ma d'accord lan moo tax d'accord ci juin non parce que moi, je suis te Quand mu demee kan kan mooy organiser kii élection. te moom waatoon na ne ne euh, le 2 avril, je réew mi léegi bon après xanaa day ñëwaat def wax man maa waxoon waxit waaw loolu moom arrangé wu ma arrangé wu ko. arrangé ko tamit ci kii dina woo ki war a yor réew mu jox ko ko mu jox ko caabi yi dem yoonam ndax loolu arrangé na Sénégal. non non non loolu arrangé Sénégal. lu arrangé Sénégal na organiser élection yi balaa le avril. mais est-ce que bu ñu organiser élection avril dina dina Madame, Madame dina dina am quoi. dina parce que on s'était préparé pour le le combien ça le 25 euh, février. té 25 février candidat wa élection eu na candidat le 2 avril. wa candidat yi ñu def def euh, le 2 juin bu a dem ak a ko waaw le 2 novembre la jàpp le 2 avril la jàpp la war a dem le 2 avril la war a dem donc le 2 avril boobu noonu ah nee na moom bu fekkente ni élection amu ci maanaam dina woo ki war a toog mu toog mu jox ko réew mi loolu message boobu tey lan lay doon. waaw message boobu mu wax de man bokkuma si nga xam ne gëm na gëm naa ko. moo tax gëmoo ko. ko mooy moom saa su nekk day day day maanaam day wax loo xam ne si du day war a ak ak li muy def. loolu moo tax loolu moo tax gëm ma ko. tey boo ko doon wax loo koy wax Macky Sall. waaw bu ma ko doon wax daal li ma koy wax maanaam mooy comme moom ba mu fiy ñëw dañ kaa faloon si njëkk comme ni ñu koy waxee ñëpp ànd ak moom ndax askan bu nga xamee dem nañ ba nga xam ne si yow nit ñëpp xam na ni yow instant yi li am na lu mu fi liggéey liggéey na fi mais boo xoolee li mu fi defoon lépp instant yi day niil ndax dafa xëccoo ak askan wi. si mën nañ ko def ci juin bi mais lépp nañ ko lal ci dialogue candidat nag yi ma dégg ñu ne duñ dem dialogue teguñu ko fen parce que tey bu fekkee ñooñu réew mi leen tax a jóg dañoo ñëw pour xool askanu réew mi kii askan wi li ñu soxla ñoom baatu askan wi la ñuy laaj dañoo bëgg ñu jox leen fi nga gën a xam ni moo gën a kawe ci réew mi mooy lan mooy post présidentiel présidentiel nag boo ko bëggee di ko laaj dangay jiital jàmm jàmm ji mooy lan mooy buñ la woowee dialogue nga dem dialogue yi

ak doomu aadama mënu ko dindi ci yow man kii m'aurait dit que un jour Macky Sall dina nekk président de la République kenn xamu ko ñu bëri kenn xamu ko. man en 2007 yàlla dafa def man bokkoon naa ñu doon ñu doon xeexal Macky Sall pour mu bokk Moustapha Niasse bu muy téye xeex bi on était dans la place ñu ñu nekkoon place de l'Indépendance bu ay étudiante la ñuy xale ñu ñun boobu moom Macky xeexul Macky Sall xamul xeex boobu mu ngi téye di dem. di campagne ci souf nit ñi di ko xéxal kon na am honneur ma je dirais pas que Macky Sall je pense pas que dina sortir il va sortir par la grande porte actuellement il peut pas sortir par la grande porte. bon bu sañu ñu dem ci jamm ak salam la vie continue quoi adduna bi léppay jeex nguur Macky Sall day jeex même man sama nguur day jeex yeen ñi di question sen nguur day jeex xam nga loolu donc kenn ko nek nag na nga and sa concentration ki xamne dañuy dem baye fi tout ou tard dañuy dem.